préfet Moussa Ba dal nañu ci euh, CDD maanaam euh, euh, comité de développement départemental wala comité départ CDD comité de développement départemental bi ñu def ah dirigé na ko dirigé bu rafet chef de service yi nga xamante ne ñooy chef de service départementaux yi ñëw nañu ñëwin bu rafet li nga xamante ni lépp ñu ngi ko doon demandé def nañ ci ay réponse yu dal xel li nga xamante ñëpp d'accord nañ ci ni li ñu amoon daaw dinañ ko def ren ba dolli ci la ren or daaw am nañu satisfaction à quatre-vingt pour cent gàmmu daaw ñu ngi ciy sant di sant chef de service yi di sant état bi di sant euh, euh, ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp à partir euh, euh, euh, préfet sous-préfet gouverneur ak ministre de l'intérieur taxawaay bi ñu am ba gàmmug daaw dox ren bu ñu nee li ñu amoon dinañ ko amaat day dal suñu xel kon nag suñu xel dal na ci CDD bi ñoo ngi gënëm bu baax chef de service yi nga xamante ni yëpp ñëw nañ jël parole waaye itam nag di nuyu ñi nga xamante ni ñoo bokk ci comité euh, d'organisation bi ànd kook man euh, président de commission yi ñëw nañu chef de quartier yi ñëw nañu chef de village yi wër na Thiénaba ñëw nañu mu xaddam yi nga xamante ni ñoo ngi ñëw ñëw nañu daayira yu mag yi ñëw nañu ak seeni représentant loolu nag da lu am solo lu dal xel luy wane ni daal gàmm gi ñor na ñëpp waaye gàmm gi ñëpp a ngi ci jàpp ah te na mu woon daaw ñun ñëpp dal nañ xel ni yàlla buñ ci yàlla yóbboo ci jàmm ak salaam man nañoo am gàmm gu ko raw kon nag ñu ngi sant bu baax di gërëm bu bu baax loolu daal kañ moo nekkoon ci gàttal euh, préfet kàddu yi di la gërëm bu baax nag waaye nag di gërëm bu baax su préfet ndax moom moo déparé affaire bi moo ñu conseillé moo ñu wan yoon wi kon nag su préfet ñu ngi lay gërëm waaye di gërëm aussi euh, monsieur le maire euh, Talla euh, monsieur le maire Talla Diagne ñu ngi lay nuyu di la gërëm ndax participer nga yaa ngi joxe ay conseil yaa ngi joxe ay intervention te lépp ngir bëgg gàmm gi baax la gàmm gi dañu ko yor rek waaye Thiénaba la te Thiénaba Seck da di une partie ci commune Thiénaba ca yow yaa jiite Thiénaba kon nag gàmm gi sa gàmm la yàlla baax la bi nga ci duggee yàlla baax la bi nga ci indee ay xalaat yu rafet bi nga ci jàppee loolu ñu ngi gërëm bu baax ci taxawaay yooyu di gërëm daal képp koo xamante ni taxaw nga ci eh, yàlla na yàlla def jàmm ñu yegg ci ak jàmm ak salaam boori le vingt cinq guddig le vingt cinq bëccëg di vingt six moom la ñu mbari jàpp waaye euh, vingt six septembre waaye mën na koo dépassé ndax euh, mbirum weer la waaye daal ñu ngi jàpp ni daal bu ñu demee ba le vingt cinq septembre guddi ga bët seddi le vingt six septembre ca la ñuy doxal gàmmu gi bu amul changement ci mbirum fe weer wi feeñ. ñu ngi gërëm aussi waa presse ah seen i taxawaay yàgg na yéen a ngi toog di ñu eh, di taatan suñuy kàddu ah boole ko akub yar boole ko akub taxawaay kon nag ñu leen di gërëm ñeen ñëpp kenn ku ci nekk fa nga jóge kenn ku ci nekk say taxawaay kenn ku ci nekk. coono bi nga def gis nañ ko yàlla nañu yàlla defal jàmm ba daal gàmmu gii ñu jëm eh, Muhammad sallallahu taala alayhi wa bi nga xamante ni moo tax ñu koy yëkkati yàlla na ci jàpp yiir ñu ba eh, mu dox ci na mu gën a rafete waaye nag ci jàmm ca eh, Sénégal bi yëpp ci jàmmi àddina ji yëpp yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla defaral préfet dafa am rek benn point boo xam ni moom laa bëgg na dugal aussi li ma taamu rek mooy ma mujj ko xam naa ni sax yaa ngi ci ndax yëg naa ci sa taxawaay yëg naa ci sa jàppale yëg naa ci sa farlu mooy logement sociaux ba ndax ku ne xam na ni gàmmu ba ay kilifa ñoo fay ñëw dëgg la sax ay kër yu leen dalal am na fa waaye bu nu sañal li nu dalan daaw du nu dalaat ndax kilifa am na foo xam bu fa xasee génne pour mu duggaat ci kër day am lu muy nuru ndax ñun politiciens yi yenn kilifa yi da ngeen ñuy daw ku ne xam na ne mën naa leen daloo waaye nag génne ci cérémonie bi dugg sama kër wala nga dugg kër porte-parole wala nga dugg kër honorable député dafay am loo xam ni léeg-léeg dafa am fu koy féetale te fekk na lu booba kon ñu lay ñaan nga dolli ñoo dimbali yëkkatiwaat sa kàddu mu jaar ci ministre de l'intérieur pour logement sociaux Thiénaba ndax loolu Thiénaba gépp moom lay jariñ Thiénaba gépp it moo ko soxla ndax bu njariñ dee am xalifa bi moo ci gën a néewle ñun njaboot gi ñoo ko soxla kon ñi ngi lay dina la tàllalaat loxo waaye di la santaat ci sa taxawaay xam naa ne yaa ngi ci waaye nga gën ñoo jàppale ci wetu kilifa yi ba logement sociaux boobu mën a taxaw ndax cere ba mën koo jariñoo e, di sant it képp ku fi teew di leen gërëm ci li nga xam ni moom lañ fi dégg ak leenu yaakaar yal na ko yàlla mottali di ñaanal it coordonnateur lii nga xam ne moom lañ teg ci loxoom muy coordonné gàmmu Thiénaba yàlla dimbali ko euh, ba mu am ci réussite bu mat sëkk ndax bu ko ci amee ñun ñëpp ñoo ko ci am ndax kenn ku ci nekk teew ci béréb bi defar rek moo la tax a jóg kon préfet daal euh, li ñuy ñaan mooy liñ fi dégg yàlla antul asarut nag moom bëgg naa cee tontu avant may agsi fii waaye déetu ko jar ndax liñ ci dégg dal na suñu xel ndax dafa am foo xam ni ñoom foofa lan toll waaye bu nu sañee ñu jéggi benn jéego boo xam ni sum diggante la ak ñoom ñu xoolaat cene ba beneen bët ndax fi ñuy wax ni day taa asarut mën na ca garab parce que ni ko liggéeye liggéey ba moo awul yoon kon ñoom suñ fa dikkaatee ànd ak ñun sit bu ci nekk fa mu ndox may taa asarut am na ca euh, saafara te mën na koo defar loolu mën naa xaar bañ xaar loo xam ni dan naa da ngay def ay peste wala da ngay defaat ay godron kooku réparé la te ginnaaw réparé ngeen def ñëw leen ñëw leen réparé ñu ko parce que cene ba sonn na ci trop préfet daal loolu rek laa ci doon dugal euh, yeneen kàddu yi ci des parce que kenn ko ne dañuy am cër te kenn ku ne boo laalee cëram day am lu muy nuru waaye maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu